nee na baabu maa jaa hmm. lii mooy buntab li dikk hmm. fii xitaabi rasulillahi ci cuubak yonent yàlla muhammad hmm. sallallahu alayhi wa sallam kawaram ju rafet ju tedd jëkkaa wa fiihi arbaatu ahadis dana ci indi ñeenti hadis bu njëkk bi nee na xaddasanaa nettali nañu ahmadu bnu hmm. maniin hmm. sëriñ bu ñëw ahmadu doomi manii hmm. kooku ne xaddasanaa nettali nañu hushaymun sëriñ bu ñuy wax hushaym kooku ne xaddasanaa nettali nañu abdulmalik ibnu umayrin sëriñ bu ñu abdul malik doomi umayr mm-hmm. an iyaad ibni laqiit mm-hmm. kooku jëlee ci sëriñ bu ñuy wax iyaad mm-hmm. doomi laqiit qaala mu ne axbarani nettali na ma abu rimthata sayduna abu rimtha àndandoow yonantu la sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu anhu mm-hmm. qaala mu ne mm. ataytu man dee dikkal naa mm. annabiya mm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dana dikk ci eh, beneen version ataytu rasulallahi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam maa ibnin maa abnin ànd ak doom lii jot ñeel na ma maanaam ànd ak sama benn doom fa qaala hmm. yonent bi laaj ma hmm. ne ma ibnuka haada hmm. kii sa dooma fa qultu ma ne ko naam waaw ashhadu bihi maa ngi koy seede qaala yonentu sallallahu alayhi wa sallama ne ma laa yejni alayka bum la tooñ wala tajni alayhi yowit bul ko tooñ waaw bu dara ci say xaq mm-hmm. waaw te xaqi waajur rëy na lool mm-hmm. waaye yow jaarale ko fi nga ko war a jaarale mm-hmm. bul tooñ qaala mu wax moom abu rimsata ne waraaytu ma gis asheyba bi jaaw yonantu sallallahu alayhi wa ahmara muy aji xonq mu ngi wane rek ne kon mhm. am na luñ ca def mhm. ba mu xonq mhm. qaala wax na abu isa borom téere bi di imaamu tirmidi dàkkantalam la abu isa mu ne haada lii axsanu cheyin mooy li gën a rafet lëf ruwiya lool soloof na ko fi haadal baabi ci bile buntu wa afsaruhu hmm. te moo ci gën a firihu moo ci hmm. gën a leer hmm. moo ci gën a leeral li anna riwaayaati ngir naka riwaayaat as-saxiixata yi wér annahu mooy naka yonantu sallallahu alayhi wa sallama lam yablughi lam yablughi shiiba jotuta be jaaw bay cuub lam yablu xi jotut hmm. a shiiba bee jaaw hmm. Hmm? kon imaam abu abu isa moom dafa d'accord ci ñu ne yonent bi jotuta bee jaaw bay bay bay tent boppam ba koy ñuulal mbaa du ko ñuulal sax waaye def ca loo xam ne dana soppi bee jaaw ba niñ ko waxee woon dafa am ñu jàpp ne yonentu sallallahu wa sallama eh, cuub na boppam mm. même su fekkee sax amul béjjaaw mm-hmm. bu bëri mm-hmm. ngir wane ne dagan na mm-hmm. ndax ku mel ne Abdullah ibnu Omar wax na ne gis na ko dégg nga am ñu ne déedéet cuub gi eh, parfum zaafaraan ak gatt yim daan def ci kawaram mm. dégg nga moom moom moo dem ba xonqal ko noonu ñu gis ko foog ne cuub la hmm? Mm. waaw mm. mu ne waa aboo rimsata mm-hmm. aboo rimsata saxaabi yu bu màgg bi mm-hmm. ismu turam dëgg-dëgg mm. mooy rifaatu mm-hmm. rifaa dunu yasribiyi at taymi neen looloy looloy looloy looloy turam rifaatu bnu yasribiyi at taymiyu nee na xaddatanaa mm. nettali nañu mm. sufyaanu bnu wakiicin mm-hmm. sëriñ bu ñuy wax sufyaan doomu wakiica mm-hmm. qaala mu ne mm. xaddatanaa nettali nama xaddatanaa nettali nañu mm-hmm. abiyi sama baayi an shariikin mu jëlee ci sëriñ bu ñuy wax shariik an uthmaan bni mawhab jëlee ci sëriñ bu ñuy wax uthmaan dégg nga doomi mawhab qaala dégg nga qaala mu ne su ila laaj nañu abu hurayrata sayidna abu hurayra radiallahu anhu hal xadaba ndax mos naa cuub kawaram rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne naam waaw qaala mhm. wax na hmm. abu isa borom téere bi hmm. wa rawaa abu ciwaanata hmm. mu ne abu ciwaanata solno na hada alxadis xadis ji an Usmaan bni Abdillahi jële ci Usmaan doomi Abdillahi bni Mawhab doomi Mawhab fa qaala mu wax an ummu an ummi salamata jële nañ ci ummi salamata dégg nga mu solo xadis ji mu ne waaye daif mu ne faqaala mu an ummi salamata hmm. maanaam niñ ko soloo hmm. ci euh, dégg nga hmm. abu hurayrata ne moom lañ laaj imaam tirmisi nee na soloon xadis ji abu uwaanata solo soloo na ko jëlee ci usmaan ibni abdillahi ibni mawhib waaye boobu an ummi an ummi salamata la wax lu ci mën a xew daal mu xaqiq bi nee na xadis ji xadis ju lompañ la Mm-hmm. nee na xadis bi mm-hmm. xadis ju lompañ la mm-hmm. ndax sharik ibnu abdullahi annaxaayi alkuufi ibnu eh, xajar tudd na ko ci taqrib ne waxkatu dëgg la ga waaye dafay juum lu bari te eh, xufaas yi dañoo wuuteeg moom ñu jëf xadis yi mu bokk ci musnadu ummi salamata te mu ne looloy jub ne looloy jub pare mm-hmm. na foofu mm-hmm. mu ne xaddasanaa mm. nettali nañu mm. ibrahim ubnu haaruna mm-hmm. sëriñ bu ñu wax ibrahim mm. doomi haaruna qaala mu ne an ba ana solo nañu an nadru sëriñ bu ñu wax nadr an nadru bnu zuraarata doomi zuraarata an abi janaabin hmm. jëlee ci sëriñ bu ñuy wax abi janaab hmm. an iyaad ibni laqiitin hmm. jëlee ci sëriñ bu ñuy wax iyaad doomi laqiit an il jahdamati jëlee ci soxna su ñuy wax jahdamatu kan mooy jahdamatu mu ne imraati bishr imraati bishrin soxnaayi bishr la imraati bishr ibnil xasaasiyati doomi bishr Mm. soxnaay Bishr mm. doomi xasaasiyati mm. dégg nga qaalat mu ne ana man raaytu gis naa rasulallahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaxruju muy génn min bayti tukkee néeg tukkee këram yanfudu dégg nga muy yëngat mm-hmm. dégg nga rësahu boppam mm-hmm. wa qad ixtasala te mm-hmm. fekk booba sangu na ba noppi boo sangoo ba noppi ni ngay def nii sa bopp bi di ko muy fëgg di ko fëgg nii loolu loolu loolu la ci jublu ni nga koy yëngatee kawar gi ndox mi di wàcc noonu dégg nga mu ne yaxruju gis naa yonantu yaxruju muy génn min bayti yi tukkee këram yan fudu di yëngal rësahu boppam mm. wa qad ixtasala te fekk na sangu na mm-hmm. mooy gannaaw bu mu sangoo wa mm-hmm. bi rasi te booba nekk na ci boppam mm-hmm. radun uh, jeexit waaw raduxun la wax mu jeexit min xinnaa in ci fuddan aw qaala wala dafa wax ne raduun maanaam mu bañ a uh, uh, nu mu tuddati bañ a bañ a bañ a tomb ayin gi raduun waaw ñaar yëpp nag hmm. jeexit lay firi rek hmm. waaye shakk sikk sàkk na mu ne fi haada ci lii a cheikhu hmm. sëriñ bi maanaam ki ko riwaaya sikk na ndax radun lañ ko wax wala radun lañ ko wax muhaqiq bi nee na nag radun moo gën a jaadu ndax moo gën a munaasaba ak li ñuy wax mu dégg nga te fekk booba jéexitu mm. fudda nang ci mm. kawaram mm-hmm. kon muy firi ne kon mos na cee cuub mm-hmm. ci nim gisee moom mm-hmm. waaye xadis ji it mm. dégg nga euh, lompañal nañ ko ndax euh, sëriñ bi di euh, nadr ibnu xaj ibnu ibnu ibnu wax na ci taqrib ne mastuur la maanaam xamuñ kan la hmm? mastuur la bu fekkee ne yow dañoo desee xam yaay kan dëgg-dëgg hmm. dégg nga dafay dafay def tasir hmm. ba lompañal xadis ji nga ji nga solo hmm. naka noonu abu janaab mi nga xam ne turam yaxyaa la eh, borom taqrib muy alxaafis ibnu xajar oh, dégg nga wax na ne lompañ loo nañ ko ngir lu bari lu muy def tadlis dégg nga mm-hmm. raduun wala raduun nag mm. mooy jeexitu mm. dégg nga zaafaraan mm. wala jeexitu fuddën rek mm-hmm. wala jeexitu gët xaddatanaa mm-hmm. nettali nañu abdoulahi bni abdirahman sëriñ bu ñëw abdoulahi doomi abdirahman mu ne xaddatanaa hmm. nettali nañu hmm. amru bnu aasimin hmm. amru doomi aasim mu ne xaddatanaa nettali nañu xammaadu bnu salamata sëriñ bu ñu wax xammaad doomi salamata qaala mu ne <clears throat> xaddatanaa nettali nañu xumaydun sëriñ bu ñu xumayd an anasin jëlee ci saydna anas saxaabi yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu mag boobu radiallahu anhu qaala mu ne raaytu gis naa shacra rasulillahi kawari yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maxduuban muy lu ñu cuub mm-hmm. dégg nga mm-hmm. waaye anas mm. moom mm. moo weddi woon cuub gi mm-hmm. kon xanaa kon lim ci jublu bon mooy euh, cuub goog mooy cuubu parfum ba mu ca daan def rek tax mu xonq ni nga xamee ne bi ko euh, sayiduna omar ibnu abdul aziz mm. mi ne woon gouverneur madina jamono yooyu omar dafa ñëw mu yónnee ci moom ne nañ ko na ko ndaw li laajal anas ndax yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi mm-hmm. jot naa cuub boppam mm-hmm. ndax man kawaram gi ma gis fii mm-hmm. dafa am couleur ndax xam nga ne yonentu bu watuwaan saxaaba yi fañ daan séddoo kawar gi di ko barkeloo kawaram ñu ngi ko denc am na lu ne Madina am na lu ne Turquie man fii ci Amérique sax gis naa ko ci jumaa joo xam ne ma ngi ca New Jersey am na ñu garde kawaram waaw waaw mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. Seydina Omar bin Abdul Aziz ne ko man damaa gis ka waram mhm. am couleur ndax yonentu dafa mos a cuub Anas ne ko déedéet yonentu sallallahu alayhi wa yàlla kawar gu ñuul kukk la ko joxoon yonentu kawar gu ñuul kukk la amee woon mu ne su doon lim li nekk ci béjaaw ci boppam ak sikiñam du ñu ëpp fukk ak benn mu ne li nga xam ne moo ko eh, dégg nga jox couleur noonu mooy gëtt gi nga xam ne moom la daan gëttoo ndax yonentu hmm. ku bëgg gëtt la woon hmm. te xadis yi xaakim wax na ne saxiihul isnaad hmm. te imaam dahabi dëppoo na ceeg moom qaala wax na xamad wa axbara wa axbarana nettali nañu abdullahi ibnu muhammad abdullahi eh, xamad mooy xamad ibnu salamata min tudd nii daanaka benn xadis la moo tax mu tudd Hammaad fii rek mm-hmm. mu ne wa axbarana nettali nañu Abdullahi ibnu Muhammad mm-hmm. Abdullahi doomi Muhammad mm-hmm. bin Aqilin doomi Aqil qaala mu ne mm. ra'aytu gis naa mm. kon Abdullahi ibnu Muhammad bin Aqil mm. dégg nga euh, keneen la ku dul Anas waaye moom dafa ne gis na raaytu gis naa chaara rasulillahi kawaru yonantu sallallahu alayhi wa sallam inda anasin fa anas kon moom ci ñu àndandooy anas yi la bokkoon mm-hmm. gis naa ko gis naa kawar yonantu anas yore ko mm-hmm. eh, anas ibni malikin mm-hmm. maxduuban muy luñ cuub cuub ga nag mm. am na ñu ne ah am na ñu ne gis nañ ko rek mm. def na ko ngir daganal am ñu ne déeréet mm. ñu am na wa sallam gàtt ga la waaw ah, gàtt ga li ñuy bañ moom mooy mooy li ñuy wax Euh, ñuulal mm-hmm. waaye bu dee cuub mm. dégg nga bu fekkee ne fuddën la mm. ak yu mel noonu mm. ñii dañ ñii daganal nañ ko ñii ñàkk ko waaw daganal mm-hmm. kii saxal nag moo gën moom lañuy jiital ci kuy dàq mm-hmm. ndax ki ne gis na ko kooku kenn mënu ko weddi waaye terewul am nañu taawil xadis yooyu